yettamaki ci ndand sawrama sadia partneri teetugga saka ci sa bopp say taña ngalañ li doo ko génne ko yow yeesal bu xar yow bu loolu du bay ba buntu dunde xam na ne moos eh Diop yow kon Diop yow kon li nga doon wax Diop Diop man moo mooma xam nga lu ma bëgg xol loo bëgg dara coow li dara nga ma mënul Diop man Diop coow li jeexul man Diop man wala dama man Diop dama lay rey Diop man sama alal xam nga lu ma bëgg sama alal gol du bay ba bu dundu Diop léegi xam nga lu ma bëgg sama alal comme tool bi nee nga yaa ko moom maa ko moom wóor na la wóor na ma leer na ma kayit waa ngi nii ci man saw kayit a ngi nii lew na ma dom man Diop kenn du ma yab dafal ndànk Diop man kenn musuma yab Diop sama alal kenn du ko jëlee ci neenu. acca acca ah kayit bi ngay génne. lii lan la ah, lii lan la lii ku ko signé lii xaw ma kon da ngay jaay ak barki Serigne Bassirou Fall alquran bu nu demee police ma denc la doxal nu dem. Serigne Bassirou Fall sant la de. yow xam nu ma. sant la ak tiña ak caay nu dem police. fa laa jëm yow. nan dem ak sa caay nan dem ñëwal. sàccub xaram ko xool sa dox yi xam ne doo jël ñu man faalewu ma xoolal sa bopp ma ñëw dama di jaaral nii boobu doo ma poñe de waaw jaaral nii rek kay toog la bonam yow kay kay toog la bonam ñëwal rek anan def gis nga bu ma amee dëgg fii maytul sa jaay si dama ne bu nu duggee ma am dëgg maytul mu la ma toog lan la. sàcc la samay suuf la sàcc samay tool. waxu dëgg doy na waxu dëgg. ku jël ay tool ak ngeen jël jàppi jaase rek. te te suba ba tey mi ngi xeex ak man. waaw. Tasliya. waaye jaay nit ku xeexal sa tool yi nga bàyyi jaase ka yàgg yow jiitu ko ci brigade bi comme ça la. mais lan la am kàddu gi. waaw am jaay jaase nga. mais doo mu ci biir da nga da nga leen ci biir. tey ci biir. doo dugal lii nga yow. ci biir nga am da nga leen rey. di nga wóor la demal ci rey. ba jàpp dal. gis nga bëgg maa raara bëgg maa raara kat nekk. allez fële. soxla ma def. allez. noonu la koy liggéey. yow góor gi. lan mooy seen problème ba ngeen ñëw fii. kii maa ko fi indi. maa la fi indi ñëwuma fi. i i ak mel na commissaire di waxee kenn ku ne di benn benn ak ngeen mel na ku nekk ci marché ba la ku nekk ci benn loolu moom fonta day sos ci la fermeté bi bu commissaire day wax kenn day wax ci mu laaj ma wax ci mu laajul amul droit naan be len ni ba len ni ci loolu maanaam indi di mën a taa ah, daga nga eh, commissaire boo fan koo laaj eh, bu leen ma fonto la seen ñaar kan moo ci numéro bu mu findi yaa findi waaye léegi yaa findi kon do eh, ko lo ci doon gàtt ñu ngi lay dem ko. gis nga commissaire kii ab sàcc la. sama suuf si la topp. la maamam daan def. maamam maamam la mu daan nangu suufu jàmbur yi sàcc déglu rek. képp ku maam loolu. wala xamal tànket loo fi wax na leer de. leer dem na baaw la def.